lépp luñ ko yor. jógewut fenn ci ñun la jóge. jógewut fenn ci ñun la baxe ko. bakkaat yi. bakkaat yi. mooy indi balaa yi. mooy indi balaa yi. mooy indi musiba mu mooy indi musiba. mooy indi jafe-jafe. mooy indi jafe-jafe. mooy indi néewle. mooy indi néewle. mooy indi naqat. mooy indi naqat. te bakkaat yi ñoo ko def. te bakkaat yi moom. ñoo ko def. bu kenn ne diwa ma def dara. bu kenn ne diwa ma def dara. ku nekk lu la dal yaa ko def sa bopp. ku nekk lu la dal yaa ko def sa bopp. Sidna Ali ibn Abi Talib. Sidna Ali ibn Abi Talib. rëdd na ci loxo. rëdd na ci loxoom ba. nit gis ko ne ko lu la dal fii. nit gis ko ne ko yow lu la dal fii. nga sumay bakkaar rek. mu ne ko sumay bakkaar bee ma ko def. te li yàlla bale moo gën a bari. te li yàlla bale moo gën a bari. te li yàlla bale képp moo gën a bari lii. bàyyi nañ dellu ci suñu borom ñu balu ko. bàyyi mu ne nañ dellu ci suñu borom balu ko tuubal ko sax nañ ko tuubal sax suñu baalee suñu baalee li ñu naqadi yëpp tegeeku li ñu naqadi yëpp dana tegeeku balaa yëpp dana dem balaa yëpp dana dem ñu nekk ci jàmm ak salaam ñu nekk ci jàmm ak salaam yi manqué yëpp dana doy sëkk yi manqué yëpp doy sëkk na ngeen xam ne bakkaar yi rek moo sabab yëf yi na ngeen xam ne bakkaar yi rek moo sabab moo sabab yëf yëpp bu kenn di teg nangam. bu kenn diwoon a teg nangam. bu kenn diwoon a fexeel nangam. a fexeel nangam. lépp lu la dal. lépp lu la dal. sa jëfe la ko teg. sa jëfe la ko teg. dellu ci sa borom. delloo ci sa borom. nga balu ko. nga balu ko. nga tuubal ko. nga tuubal ko. su la baalee rek nga dal di am jàmm. su la baalee rek yow nga dal di am jàmm. yàlla moo la moom. ndax yàlla moo la moom. moo la bind. moo la bind. nekkuloo woon di dara. nekkuloo woon di dara. moo la jox kattan. moo la jox kattan. moo la jox wërsëg ndax wërsëg bi ngay wéyee. am lu mu la sant am lu mu la tere. am lu mu la sant am lu mu la tere. soo bàyyee lim la sant. soo bàyyee lim la sant. di def la ko naqari. di def la ko naqari. mën naa am ay jamono mu yar la. mën naa am ay jamono ñëw mu yar la. yar googu sax bëgg la rek la ci biir. te yar googu ko. xam ne lii mooy yoon wi. xam ne lii day mooy yoon wi. bu ko defee rek. bu ko defee. rek ñun ñëpp ñu aw ci yoonu salaam. ñun ñëpp kon ñu mujj aw ci yoonu salaam. yoonu jàmm mooy jublu ci yàlla rek. yoonu jàmm mooy jublu yàlla rek. gëm yàlla. gëm yàlla. di def lim digle. di def lim digle. di bàyyi lim tere. di bàyyi lim tere. mbindeefam yi itam. mbindeefam yi. nga xool leen bët bi mu leen di xool. nga xool leen bët bi mu leen di xool. yàlla kum bind rek bëgg na ko. yàlla day képp kum bind bëgg na ko. kum bëggut doo xam. ndax yàlla moom. kum bëggut doo mën a xam. rawatina nag def la ngay doomu aadama. rawatina def la ngay doomu aadama. rawatina nag teg la ci ma palaasu teraanga. rawatina mu teg la ci palaasu teraanga. te lu moom la. te lu xam nag yàlla la. soo xoolee mbindeefam yi. boo xoolee mbindeefam yi. bët bi mu leen xool. bët bi xool. ku nekk nga wàcce ko ca place ba ko yàlla wàcce. ku nekk ba ko yàlla wàcce nga wàcce ko ca. rek nga. waaw ci yoonu jub kon yow nga dal di xaw ci yoonu jub kéefar mooy weddi yàlla kéefar mooy weddi yàlla li gën a ñaaw mooy def lu bon ci mbindeef yi li a ñaaw mooy def lu bon ci mbindeefam yi topp yàlla topp yàlla mooy gëm yàlla mooy gëm yàlla jaamu ko jaamu ko la ca tegu nga def lu baax ci mbindeef yi la ca tegu nga yi soo leen mën na defal lu baax nga bañ leen a lor soo leen mën a defal lu baax nga bañ leen a lor bu leen xañaanante bu leen xañaanante bu leen gëdduhante bu leen gëdduhante bu leen dogoo bu leen dogoo bu leen jëw seen morom bu leen jëw seen morom bu leen rambaaje diggantey soppe bu leen rambaaje diggantey soppe yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam kees ci mbindeef yi kii kees ci mbindeef yi mooy ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne dañuy rambaaj dañuy rambaaj di teqale ay xarit di teqale ay xarit di sakkul ayib ñu amut ayib di sakkul ayib ku amut ayib ñooñu ñooñu yooyu yëpp yëpp ci mbindeefi yàlla yi. ñoom la yàlla njëkk a taal safara. te ci ñoom la yàlla njëkk a taal safara yi. rambaaj du dem aljanna mukk yonent ko wax. rambaaj du dem aljanna mukk yonent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam. wattu leen rambaaj. wattu leen rambaaj. yàlla dafa bëgg àddina fii nekk fi. yàlla dafa bëgg àddina fii nekk fi. àddina fii mënu fee nekk lu mooy ci mbooloo mi. àddina fi du fi mën a nekk lu mooy ci mbooloo mi. mbooloo mi mën daa am lu mooy ñu am njiit. mbooloo du mën a am lu mooy dañu am njiit. topp ci njiit la. topp njiit la.